ingénieur kon mooy maanaam jàng na ba. Euh, ah awa tamit moom ah maanaam intellectuel yi quoi nañ ko déglu. yi. waa ji ab ingénieur la waaw ingénieur kon mooy maanaam jàng na ba sotti ba commencé liggéey. Mhm. am poste bu baaxam mu dugg ci mooy linkit yooyu noonu ñuy dugal seen affaire yi quoi. waaw seen CV yooyu ndekete am na ñoo xamante ne dañuy jël ay mailu mais lu maanaam benn entreprise bu nekk Grande-Bretagne dañ lay contacter ne la sa profil daf ñoo intéressé envoyé la benn genre entretien en ligne nga remplir ko envoyé waat leen ko ñu mettre la en rapport ak ñu jox la mail boo xam ne moom mooy mailu ambassade u Angleterre. Mhm. bi nekk fii dafay nekk tamit lépp dafay correct nag. Mhm. maanaam day correct yi ñu lay yónnee yëpp ay correct nekkate njaay dóori kese la. est-ce que Angleterre am nañu ambassade Sénégal. xaaruma mm-hmm. ko de. parce que parce que ñi def Angleterre fii ni Gambie la ñuy dem. Gambie la dem ba pare boo ko demee Gambie sax amuñu fa. dañ koy envoyé ba xaw ma fan xaw ma Nigéria xaw ma fan. waaw xam nga nag xam li mosoon na am ci BNP Paris Banque su ma xaw ma ndax yaa ngi ko rappelé wala waa ji joxe fa benn chèque ak benn genre de charge mu nekk ci kii wu euh, mm-hmm. teg teg mais ñii moom dañoo ñor. waa ji nag mm. ñu ko defalee ba pare. defar loo ko parce que passeport dafa desoon ay 4 mois pour mu jeex saa yi renouveler passeport dem moom daal fay na ay 400 et quelques mille diggante defarum passeport ak ay ñaan ak yooyu ba mu xamee nag moom lii coût la parce que proposé nañ ko 7 millions. passeport 400 mille. ku ko loolu de boo. ñaan nag non non waxuma loolu de. ñaan du la def passeport 40 mille waaw. passeport waaw. ñaan 400000 xanaa du passeport sénégalais. waaw mais gars yi yow tamit Ndiaye tamit xam nga fii boo bëggee lu urgent yenn saa yi mën nga xam nga bien que léegi passeport li kii nañ ko léegi gaaw na et mais mën ngaa ñëw fii nit ne la kaay ma kii ci benn benn benn 24 heures wala 30 000 ma génne la ko nga kii ko quoi. Hmm. <laughs> passeport moom léegi fët fët la moom. passeport moom léegi 400000 yow pass ci ñaan. ci ay ñaan ba pare na loolu neexul de ku ko am dañ ko wax mu génne ay sarax muy génne dem ci koy sarax bi mu ko waxee mu génne sarax da ko ne ko ndax dañ la wax dama bëgg nekk président de <laughs> benn nag chauffeuru kalandu donc dañ la wax dama bëgg <laughs> <laughs> gaa loolu neexul de ah, waa waa quatre cent mille intervalle boobu noonu ku xorom ne ko bon diw sama mayel dix xool ba feex na parce que gars yi sept millions lañ ko proposé ak ay ay indemnité yooyu noonu quoi eh. léegi desul ba desul nag lu dul nag war a war a war a ñëw gars yi ne ko ne léegi yaay fay moitié ñu fay moitié pour voyage waaw. saa yi di lijjanti ba contact ben copain bu maîtriser affaire yi. mais jaay histoire bu neex. hmm ma la ko wax. ñu déglu déglu. affaire bi dafa logique tellement que mënoo xalaat ni ni arnaque la. bon man xam nga d'habitude man ingénieur la génie civil d'habitude damay sur linkit parfois je suis gisee une demande damay dugal ça CV ba benn jour j'ai reçu un mail donc euh, les gars là demandé ma ni ils ont vu mon profil d'affiner leen donc ma gis entreprise et tout ça une adresse et tout ça mais de vérifier sur le net xool entreprise bi tout ça ma xool entreprise pas existé quoi même adresse puis tout ça numéro téléphone yëpp ma gis quoi ma dugg ci site entreprise bi j'ai vu les mêmes informations que yi ma gis ci donc ma envoyé ça m'a CV bon ça sama après nous gis ma di profil expérience bi par rapport ak projet yi nga def si profil intéressé nañu trop donc léegi dañ lay envoyé benn questionnaire donc bi ma des day questionnaire xam si comme entretien ba ma envoyé questionnaire bi mais tout c'était en anglais ah hein. plus entreprise boobu ñu entreprise la boo xam Londres la nekk quoi Watford entreprise britannique donc ma dugg foofu ma xool questionnaire yi questionnaire yi presque nekk ay questions techniques ay questions yoo xam si lié à la société et tout ça quoi presque trois pages même ma répondre ci question yip yip yip yip yip après envoyé leen ko on a envoyé question ici

sama passeport desoon quatre mois donc parce que j'ai payé presque quarante mille francs pour passeport bi gën a gaaw donc loolu entre loolu mooy a bi ma ko ma wax après ñu ne répondre ma ma tout c'était en anglais ah. ñu ne ma pour information pour visa lii ak donc il a failli 800 livres sterling comme frais de visa quoi après ok c'est une après j'ai envoyé un euh, mail à l'entreprise mais par exemple j'ai envoyé envoyé la avec son passeport donc il m'a envoyé la formulaire mais ils m'ont dit eux avant ma envoyé la formulaire d'un rempli prix d'après m'a envoyé la pignon comme j'ai dû remplir la formulaire donc dit ok mais après il m'a dit que pour euh, frais de visa donc euh, ce sera 800 000 mais non mon ne fait 800 000

donc lépp nickel j'ai regardé partout ba sax ma xool sur sur LinkedIn quand j'ai regardé LinkedIn waaye su ma gis ni am na ñu bëri ñoo xam ni même ñun ñun ma ñu ma mënoon arnaqué noonu lañ leen arnaqué bon man nag ñoom arnaqué ma lekk ci man dara waaye nag moo ci <laughs> moo ci grave mooy que par exemple depuis ma jot information boobu noonu j'étais tellement content parce que sama jëmm proposé presque ëpp na 7 millions donc presque nit dangay xool sama mbéy mi presque j'ai dépensé presque ci diggante bi ay 400 mille formation en yi ak passeport yi donc loolu mais yooyu yëpp dañ ci defoon na fi cours def ko moom mi. ah bon waaw ah, hmm? ah. di waajal. <laughs> di waajal tukki bi na ci na ci ñëpp yeewu nag. na ci ñëpp yeewu mos. na ci ñëpp yeewu c'est-à-dire ko foog de. non ki nga gars yi. foo foo xalaatoo fa la ñuy génn gars bu ñu yegsee. Mhm. dañ koy préparer ba mu baax. Mhm. gars bu ñu yegsee bu koy teg doo mën a teggi leen mooy lis sa neex doon wax naan affaire bi dafa set set goo xam ne yéen sax mënoo leen maa gëm. booy leeral sax yow li nga leen leeral yow ci ñoom day lëndëm. non je te dis ñoom li leen ñee wax rek moom la ñuy gis. am na ñu may envoyé message yi ma wax ne ma ambassade Grande Bretagne am na. am na Dakar am na fi. mais service visa bi moo fi amul. service visa bi foo leen foo leen Angleterre représentation diplomatique bi moom am na fi. ok mais service visa bi nag moom amu fi. voilà kon loolu la kon. loolu leer na doo ci sori ndax day mel ne da ngay. seen communication ñu suñu ambassadeur sénégalais la la ñuy xool fu ñu nekk ak nu ñu fa nekkee. ñu ngi ci jàmm de fi ñu nekk. ñooñu ngeen ñu ngi jàmm moos. kon baax <laughs> ñu fexe ba suñuy doomi réew yi nekk foofu rek ñu ne ci jàmm. Ah, paas waaw nañ dem. ñu dem Ghana Ndiaye. Ndiaye li tamit wax dëgg yàlla nag ah. Ah. ñun on a beau sensibiliser quoi. xam nga Ndiaye balaa ngay am gën a am lu la métti rek nit woo la di la wax ne la sama doom wala sama rak dafa jël gaal.